ngeen demee ba ngeen ñëw fii wallaay nun tam soxloon nañu sax di ku ñëw fii Mamadou Lamine Diallo yow ñëwoon nga fi 2007 waaye nun bi tey ñu ngi la bàyyi xel waaye gisatuñu la waaye yow sa sant bi sax dafa neex xam naa ne yow loo def day baax tax sant bi neex na <laughs> noo ngi laa bismilla noo ngi laa bismilla ci njow siir nun lii Babacar a mooy sunu problème luy sunu problème yépp sunu xale yi jigéen yi amuñu lu ñu liggéey ku xëy toog ndax amoo foo jëm nun kay li ñu jàmm li ñu war jàmbat sax dafa bare nun noon ci ñëw si gi amuñu marché amuñu case de santé amuñu maternelle xaleel amuñu financement jigéen dara ñooy njëkk yàlla loxo rek ñuy mar suñu la nun nag yàgg nañu ko jooytu waaye ku ñu jooytu ba kii rek mu nax sa muy loolu ah boo fi ñëwee dëkk ñu lox nun ku ne xam na ne waa Njuusir du ñu naxaati kon bu ñu la jox lox jox nañu la lox bu ñu joxee bopp jox nañu la bopp soobee yàlla ak yonent bi loo la ñu ngi ci subu ba ëllëg yow tam bu la yàlla mayee li nga soxla ci yàlla na la ko yàlla may nga xam ne waa Njuusir bàyyi nañu la xel nga bàyyi ñu xel li ci des noo ngi laa gërëm di la sant incha allah loo bëgg yàlla nay jàmm